mel ni Père Mbaye Mangone bi nekk fële nga xamee ni mooy Sen TV yëkkati kooku duma ko may bës bul wax turam non non ñàkk aussi nga am am leeral kooku vraiment nga baal ma question boobu lu tax aussi duma tontu kooku mag la je passe ndax ma ngoone bu xoolee ku mel ne Mamy Cobra hmm. di ko jiiñ bënn làmmiñ tooñ na ma bu doon keneen la dama koy porte plant ndax bëri nañu commentaire wala di kaa yëpp porte naa leen plainte awma kersa ci loolu kenn du ma yàq balaa nga ma yàq ma yàq la barki borom tuba bo ma nara yak ma efasal duma fayanto tolu bon mais so nare ma fakastal kon dama koy jeuflante ak yow père ma ngone day mak dama koy xolé sama mam mhm. ndax mo mak sax sama papa mais xam nga ni mak sa papa taxaw di wax naka sudu nonu mhm. am ay dom damay xol ci ay domam xol ci ay soxnam d'accord motax duma wax mais amna sama amna sa sama ay dom yu genn ñi saga ñi wax mais dama len arrêté len ko ta ngeen dindi vidéo yi ndax kilifa la ana kilifa xama lami ñi ngi ni d'accord man du ma bënn làmmiñ yow man frère xaw ma lu juste en dehors de am na yeneen kàddu yoo xam ne aussi wax na ko nga mais wax na ko loolu bu ko waroon a wax danay conseil danaan sama doom hmm. li nga nekkee tegoo ko fenn li nga wax tegoo ko fenn sëy dëgg mais du ñëw di ma inventé lu ma deful. Hmm. di ma waxal lu ma deful. est que image bi mu gis image dafa garaaw ndax man maa ngi gis image bu ko raw ci moom ndax moom day wax di wax waxi ñaaw waxi vulgaire ci paax koo xam ne dee wala dese. ak bàmmeel ak ni mu xatee doo jaaxaan da ngay weng nga toog ci digg télé di waxal xale lu ñaaw a ñaaw ci mag moo xam ne yow amoo daray karaw ñuul sa lépp a weex kon kooku jarta tontu nan waxante dëgg